mais daal yéen ngi ci yoon wi ñu ngi leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi am na solo. ñu bëgg na xam kan mooy Max Mbargane. waaw Max Mbargane de benn dongo la boo xam ne jolof jolof laa nag man. ndax maa géddloo boobu newoon ci gouvernement bi jamono ay Senghor moom lañ ma tuddee. Mbargane ji dàkkantal la bi may yëngu ci wàllu làmb moo waral turu Max Mbargane wi. Euh, jàng naa école ba li naan classe su naan di tey CM2 fa laa bàyyee def menuiserie. ba mu yàgg dugg ci làmb ji continuer euh, bàyyi làmb yor école de lutte formé mbër yu bëree bëri di ko dalee ci xaadim Ndiaye yi Pouye Baye Mandione ba ci ñoom Fëgala Tidiane Faye euh, Bombardier ànd ak moom ba mu doon roi des arènes Bazoka Siré Seras dun xaaf bëri na li ma formé ci mbër suma ko doon lim duñ fi jóge biñ demee ba caaro yi nag euh, langue daar su baaxee ñu ne ñoom la su bonee ñu ne ajoor bi de suñu biir jee mu dem ba doon euh, roi des arènes ñu ne ñu ne daal jaambur yi sonal nañ ñu ma ne na xaaral ma dem toog sama ginnaaw kër lamsaar toog xaar fa yàlla bi ma koy sos nag jëluma champion yi ne woon caaro yi ndax ñoom ay doomi caaro yi lañu di ay lébu mais damaa jël suq yi ne woon seen ginnaaw ku ne xam ne na ñoom Issa yi Khadim Ndiaye numéro 2 ay ay Ousmane Diop Euh, ñoom nees ñoo neewoon seen ginnaaw ay Tidiane Faye Sentel ak ñoom Fëgala ñooña laa jël ñëw Lamsaar ak ñoom Super Étoile fekk si ma ak Tigre ñaari at lañ def saa wuñ concours yëpp may jël pay au niveau ci làmb ci kooku mooy Max Mbargane léegi ñun bëggoon nañoo xam nag Max dafa def bëre wala daa xëy xëy nekk entraîneur wala lan moo ko tax euh, daal ñu xam ko ci làmb noonu tamit. <laughs> non bëre naa. bëre naa. lutte lépp def naa ko. nit ñi nag danaan naan mag su bëriwul mbappat yi moom toj naa ko ndax champion yi fi mënoon yëpp presque daan naa leen ci mbappat yi. comme ñoom. bëri na Ambroise Sarr mii di yor di entraîneur école euh, écurie Thiès laa ko daane daan Ndiaga Niang ak Boy Niang daan naa Zallo daan Lac de daan Boy Kayré. waaw daan Balla Beye numéro un ñëpp ci mbapat daan tut bàkk ñoom ñëpp ci mbapat laa leen daan mbapat tooy leen temps fu ma nii si ñu abal ma fii ak Gambeek fu ne toj naa ko arène it euh, bëri naa sept combats arène bu mujj bi dañ maa jam contre Mori Touré Mbour fa laa bëri naa ak Birane Kumba bëri ak Mori Touré euh, bëri ak bëri naa sept combats arène ma jamee ci laa arrêté sama carrière ñu bëri nag dañuy wax sax mag su bëriwul. Mbour la waaw sàll naawoon lañ ma jam ci épaule. booba Manga dafa bëri tubaabu joor tubaabu joor daan ko dem di fete victoire bi jël rakkam bu ñu wax Mauritanie tëgg tëgguñu combat arène maag moom mbuur booba mbuur maa ko toj ndax mbuur liggéey lañ ma doon woowe dama ñëw ci mbapat mi di tuus ànd ak De ak Mansour Diop ñu ne duñ ma tuusal ndax du ma mbër waaw euh, ma teg ndënd mi jël seer ngemb daan ñene ci làmb jëpp bokk ndënd bi di ko tëgg di wax ko bëgg liggéey moo waral mbuur liggéey rek lañ may woowee mais nit ñi sax dañ naan bëréwul mais ginnaaw ba lu wees la jaru ko mais boo seetee li ma forme ci ay champion ku jaar ci làmb mënuloo ko moo tax sax xëy na yéen ay wax mais du ma wax sax ci yooyu mais ñi ko fekkee xam nañ ne jaar naa ci làmb waaw loolu moom solo léegi hmm, waaw Lamsar man bëgg nañu xam ban at nga ko formé. waaw Lamsar ay 2008 bi waaw maa ko sos mais xam nga Aliou Diop ma nga fa sama doom bàjjen la mooy entraîneur bi moom daana bëre mais côté Jolof lépp lu mu doon bëree def na fa lu ne moo tax bi mu ñëwee ma sos écrit bi teg ko ci loxo mu uuf xale yi ak Idi sama benn jarbaat léegi ma nga Espagne moom la doon wax sëñ Modou Niang numéro 2 mu joon na bi ma bàyyi tëgg mbappat sama koñ nga xam ne tëgg naa fa mbappat moo xamante ne ay at champion yu bëri foo lañ lukki ko Eumeu Bombardier Khadim Ndiaye Balla Gaye numéro 2 euh, les 2 ak Cheikh ak Xuma li ma naan daanaan yaa ngi ci tuus yi bëri na ñoo xam ne ay ndaanaan la ñu woon mais génn ñu ci làmb te mbappat fu mu a am dañuy daan champion yi dem seen yoon Balla Gaye mos a fa bëre ba demi final dallu daan ko mooy papkat numéro 2 ma koy jox paas daanaka dafa gedd paas bi jooy may leen kii fii ak ay at fu ñuy dégg mbër danañ ko fa dégg ci champion lay doon moom Balla Gaye 2 booba laa xale bii ku jar a bàyyi xel la booba bu daan ñëw sama mbappat kii damay woo Balla Gaye ne ma Baye Mandiaye mi ngi ñëw ak Omar Balla Gaye 2 ak Les nanga na nga leen euh, bàyyi xel bu ko defee bu fa histoire am euh, ba ci ndéem si yàlla tey seen moo du Awa tëgg naa fa mbapat loora mat ay at yoo xam ne lu ma fa teg moo ko moo Modou Awa moo ko Siré Seras Babacar Diallo ñooñu liñ bëre ci mbapat ba léegi bëree bëreegul ko ci arène bi ba ci musaa Dioum ñooñ ñëpp ay ndaanaan lañu Lamp bi nga ko sosee yan mbër ñoo la fi njëkk fekk. waa ñama ko so daam ñu ànd ak man ne jóge caaro yi xam nga Tidiane Faye doomu Lamp Sarr la Fëga la doomu Lamp Sarr la Sentel doomu Lamp Sarr la ñoo ñoo àndandoo ak ñoom bi ñuy rek ci la ñoom super étoile ñëw euh, hôtel Dior mi ñëw Mbagnick boobu ma ngi fa moom fa la démarré fa la ñëw ak Tigre Tigre dafa ne tàgguwuma la per li nga daj ci man foo ne fa laay ne ak doomu Jalaaw ak Ablaye Pouy bu Mbaaw ñoo ñoo sos lamsaar ak ñoom seex Mbacke ak ñoom ndongo xale yooyu liñ naan fukki nit yoo fukki mbër yoo gis kenn la ñuy gunge ñenn ñi amuñ ci sens bàyyi dem witi leneen. sa diggante ak Thiaroye dafa amoon coow ba tax écrit ba nga jóge fa ba dem sa sos lamsaar wala. waa yi xam nga problème mooy euh, léeg-léeg nga dem ba sos dara jël ay nit ne leen kaay leen jiite bugguma tudd tur ndax ñoom ñu ngi koy rëcc ñooña dem ba ci biir former bureau di tëgg ay mbapat. Ah, def ko genre tour te duñ leeral nit ñi ni mu demee euh, sëriñ Modou ñaa joxe deux cent mille invité Baye Mandione pour mu bàkku ma tas ko ci mbër yi ñu dem ne non max li def di yoon commencé indi ay problème daal waaw commencé indi ay coow yu dul jeex max nii max ne kee ajoor la kii dëkku fi coow li bëri ba gisatuma ci sama bopp te man da ñeme naa dem man dong boo gisee may wax ci làmb ji man kenn siiwul ma ànd ak yow mbër moo gis ma ànd ak rek ay quarante mille la ñuy dale wala cent mille ba nga dégg daali di bërëy million moo tax soo ma nañ dem rek ma ne la ay ci na la yàlla defal jàmm waaw man du ma xuloo kenn du ma yéene nit lu bon mais xam naa ne yàlla noppi na te moo yor programme bi nag. waaw nañ la sax. Mhm. kañ nga sama mbapat la doon ñëw te bi may bëree mbapatu mbuur la la la la ñu ànd ma moom. Euh, mu ñëw sama mbappat euh, lu ma fa teg mu jël ko moom Bombardier bëre mbappat def na lu ci làmb dem ba ci biir mu ne ma dama bëgg a bëgg a bëre damay dem écrit tubaabu joor ma ne ko bul dem du yàgg ba tubaabu joor famille ba famille làmb la du la du la jàppale bàyyi ay rakam wala ay doomam sosol sa écrit bopp naa la jàppale maa ngi moom ñoo ànd ak xale yi soso écrit mbuur may jël mbëri lamsaar yi ak waa caaro yi ñuy dem di ko jàppale ba mu mën a sos écurie su ma daan yóbbu gars yi ñuy dem contact ku ci mel ni Ousmane Diop moo tax seen xamee am ku ci mel ni euh, muuma euh, même nees ñoo ñëpp daan nañ dem euh, bombardier boo amee combat dem di contact ak moom ba mu mën a am écurie boppam waaw mais muy koo xamante ne nii dem na ba ci biir xam nga rek ñaa bu demee ba ak ci benn niveau bi nit ñi dox suñu diggante mais moom ku baax la ndax même bi ñu bi ma bàyyee ñëw fii toog it yàqul sama relation moom dara li cëpp dañuy wootante dañuy séq jàmm di séq salaam mais boo seetloo archives yi jàll yëpp combat bay stade fii nii maa doon so maay sol blouson bu verte bi di toog ci siège bi su daanee man la daan yenu di daw ak man am na photo bu muy tàllal loxo bi moom Tafa naan ma Tafa fan la may jaar di bees loxo yi booba man lay waxal mu ne ma ne ko tey jeune ñi muy fixé moo leen mag kum ci fixé nga xool corpulence bi daa jekk mais yow bu la xoolee xool xale bu bari doole naa mu doon euh, koo xamante ne ni jaar nañ fu bëree bari mais xale la boo xam ne yàqul relation bi ma man it ma ko ñu ngi seq jàmm donte yor naa sama école de lutte na léegi non li ma la wax rek xam làmb leen nga dem ba moom du gisatul boppam ci man gisatuma sama bopp ci moom euh, parce que loo war a yëg léeg-léeg bu am na foo ko dee da ngay xam ne cof nañ wolof dafa ne bokkoo ci dafa ko yox mais dafa ko fay xaar ma dem lamsaar këree fa toog xaar yàlla mais yàqul parce que bu doon lu ñagas wala ñu xuloo du jël téléphone am di ma dama koy woo mu may woo mais ñàkkante nit da ko war a nangu yàlla yor ñëpp moment bi ma bàyyee caaro yeeg euh, mbuur ñu ngi ci biir écurie yi mais da ngay gis ay cent cinquante deux écurie lamsaar di jël pee mais loolu du liggéeyu benn fan am na écurie yoo xam ne ñu ngi excité ba léegi duñ bokk ci dix premiers bi gars yi ne ma pay bi loola ci neex may leen pay intéressé wu ma li may intéressé mooy bokk tey mënoo lim fukki écurie te tuddoo Lamsaar mënul ne suñ daan def bilan du baax comme daaw jéeg nga daaw saison ba la ñu gën daaw jéeg nga xam ne dañoo am treize victoire treize défaites dëkk bépp di wax ma attaqué euh, waa sunu làmb maa ngi leen nuyu de passage ñu ne ma écurie bu mag ngeen yéen ak Rock Énergie Balla Gaye ak faas def bilan bu ngeen am dañ koy wax ndax du ngeen écurie bu ndaw mais loolu sant yàlla la ba ren ñu jël boo kaat ci course bi di ñafe kon loolu moo lay wan ne